yàlla dafa dogal bi nga xamee ne le 6 mars le 2 mars senegal am na cas ci corona bi premier cas la cas ba am Dakar am ñeenti cas sunu borom tabaaraka wa taala dogal Touba am le 6 mars mu am benn cas cas boobu wàll ñaar fukki nit ak juróom-benn. muy 26 cas yoo xam ne ni centre bi fii la nekkoon parce que jamono boobu Touba moo ëppi cas ci ci Sénégal moo ëppi cas ci sous-région bi 26 cas amandoo fi benn yoon bi fi 26 cas amandoo yee xalifa général de Mouride Serigne Mountakha def ci premier actam fe lim njëkk def mooy bi mbir mi jub mu jàngalu alquranul karim jàngalu ay xasaayit ne julli di nañu ñaan sunu borom tabaaraka wa taala jàmm wàcc ci réew mi te ci ci loolu sun borom loolu la acte boobu la njëkk a def bi lii amee mu woote yëkkati deux cent millions de francs fa état waxagul yëngoogul dara xewagul moom xëy na sun borom xamaloon na ko lii xew mu yëkkati deux cent millions yëkkati ko jox ko pour nekk exemple ci ci réew mi ci àdduna bi pour wan Sénégalais yi wan taalibe yi ne leen dama bëgg ngeen xam ne mbir mi lu mbiram ñëpp la ci ñëpp la dal kon nag ci ñëpp kenn ku ci nekk bay sa waar loolu la njëkk a def daal di ñuy woo ne ne ci ñëpp jàpp bi mu ko defee ba pare dafa joxe ndigal ne ne ñëpp jàpp ne ci ñëpp jàpp loolu moo tax commune Touba yëkkati woon fukki million ci turu commune bi joxe ko fii nga xam ne fi cas yi xewee 26 cas amoon nañ ko état bi dégagé euh, hôpital militaire bu un milliard et demi ak quatre-vingts militaires yoo xam ne dafa ànd ak seize officiers euh, ministère des la des des des forces de armée ñëw fi ñu installé ko ubbi ko ba nëgë hopital baa ngi fonctionné di faj nit ñi ci yeneen feebar ci gratuit waaye ñi nga xam ne dañoo feebaroon te centre bi nekk fii ñetti mbir jaadu ci ñoom luñ leen di faje fu fuñ leen di faje ñu leen di faj lan lañ leen di faj loolu moo taxoon commune bi dégage ci million millions pour jox ko commission régionale bi ma teg ko ci loxol sous-préfet sous-préfet teg ko ci loxol gouverneur gouverneur dajale l'ensemble des des des médecins district bi nga xam ne ñoo fi ñëw ak waa sante ñu di ko fonctionner ngir mën a seere maanaam euh, malaat yi nga xam ne ñoo fi nekk ngir benn ñu bañ a am benn jafe-jafe waaye ñu mën a jël ay matuwaay ba dootuñ wall kenn malheureusement nag ñu demaat ba mu yàgg ñu am benn cas communautaire boo xam ne dañ ne ci dëkk bi la dëkk mi ngi liggéeyee ci marché Ocass te yàlla dogal na dal na ko xamul kana ko ko wàll xamul fan la ko jële muy loolu di lu tiis lu métti te doy dem tiitaanga ndax bu fekkoon ne dañoo xam ne dafa jóge barab sàngam ñëw barab sàngam ñu ne da koo indaale ñim jot a laal wala ñim jot a amat contact danañ ko mën a identifier comme nañ defoon bu njëkk waaye sunu borom ta dogal ne loolu kenn xamu ko loolu nag di war ñoo jëlloowaat ay matuwaay sëriñ bi dellu woote waat joxe ndigal ne moom ci boppam gis ngeen ko mu dugg ci jumaa yi Tuubaa ji raxasu moom ci boppam ba set ci biir jumaa ji bi muy jullit loolu nag bu ko sëriñ bi defee dafay wën nit ñi ne nit ñëpp dañoo war a tënku ci ndigal li nga xam ne mooy la borom xam-xami sant yi joxe ngir ñu di ko moytoo euh, mbir mi daal di toog ne nekkatul résidence Xaadim Rasuul fi muy nekk nit ñi di fa ful ba di fa ñëw nekkatul nekkatul ci kër sëriñ Basiiru bi ma ca Euh, résidence am tëju foofa ngir di daw mbooloo mu daje ngir bëgg nit ñi roy ko ci loolu waaye mu doxaat mu waxaat ne nañu toog waxaat ne nañu dellu ci suñ borom tabaaraka wa taala wéetal ko te tuub te jéggalu waaye waxaat ne nañu dimbalee kenn ku nekk na dimbale ki nga tane loolu nag moo tax commune Touba jël deux cent millions de francs CFA ci bi ñu defee ci suñuy compte waxtaan ak sama bureau municipal ak sama payeur te bi nga xam ne moo nekk des département bi maanaam ñu xool ci kanam sous-préfet ñu gé dégagé deux cent millions de francs fa jënd ci quatre cent tonnes de riz jënd ci quatre mille bidons diwlin jënd ci dix mille goros de sucre maanaam ngir jébbal ko askan wi nga xam ne yàlla dogal na nee nañ leen dañ daan yëngatu di dunde ñoo ne leen toog leen dootuñu am possibilité dem wuti loo xam ne tey bu subaa moom la ñuy dépassé nit nag bu loolu dalee ci saw askan war nga am dafa métti lu métti dal na leen war nañoo yëg ne sa yéene ak sa xalaat ak sa man-man fournir nga leen ko ba mu jeex li ci des ñu bàyyi ko suñu borom tabaaraka wa taxalaat ndimbalu état bi mi ngi ñëw waaye mbay eh, ndimbal na ci fekk loxol borom dañoo bëgg commune Touba moo jël lii uniquement mairie bi au nom de conseil municipal au nom de bureau municipal maanaam pour jox ko askan wi nga xam ne ñooy askanu Touba amuñu ci xej yi amuñu ci seen li may ñaan jébbal nañ ko commission sociale ak bureau municipal ak sous ak association yi fi nekk nga xam ne ñii day am dañ ciy am ay représentants ak conseil de la jeunesse ak ñëpp ak même imam yi ñu fas yéene koo séddale séddale boo xam ne nii ndax ñaari nit ñaari mbir moom ku ko borom teg teg na la lu metti muy atte ak séddale dafa am àq joo xam ne soo sàmmantewut ak moom mën na laa gaar ëllëg fa nga xam ne jub rekk fa am njëriñ commission sociale dana ànd ak ñooñu ma wax euh, monsieur le sous-préfet ànd ak conseil de la jeunesse ànd ak daayir euh, imam yi ñu dar benn commission de distribution ak procédure boo xam ne danañu ko séddale ci ki nit ki njëkk ba ci nit ki mujj ëllëgee ki si kenn ku ci nekk danañ xam ni nii lañ koy defee. fas nañ yéene daal kenn ku nekk def nañ ay bulletins yoo xam ne prénom moo ci nekk non nom de mari ndax dañ ne famille bu nekk lañ wax nom de mari numéro carte d'identité numéro téléphone village ou quartier riz sucre diwlin. bu kenn ñu bind ko kenn ku ci nekk ci nit ki njëkk ak nit ki mujj kenn ku ci nekk danañ la bindal saako ceeb bidon diw gorosab suukar jox la ko nga xam ne trans lu leer lay doon. numéro un numéro un lay doon. Mhm. ba ñu wóor ne ceeb bi jeex na ci. ñu sàmm njëriñ ñi koy def danañu sàmmante ak seen diggante ak seen borom sàmmante kenn ku ci nekk muy rakk ji nga bokk ndey ak jarbaat bi nga am ak ki nga xam ne dafa dëkk Touba sañ si fi biig nekk ca àll ba xamoo turam xamoo santam nga yemale noonu xam ne ñëpp ko moom si ngi nii toog Xaadim Njaay ngi nii toog ñi ko doon gën a doon seize mille personnes lañ Abdou Lahad Ka récurrent mi wuma ci benn nit boo xam ne maa leen ne kii bind leen ko wala dugal leen ko ci te yaakaar naa ne ñëpp ne noonu la ñuy def amul ku yàlla bind ci 16000 personnes yi man tudd naa ci nit xaw ma ci kenn dugaluma ci kenn ku ma dem ba mënu ma laa ñàkk jox li wërsëg bi ma yàlla jox danaa ci dindi li ma man jox la ko ñu bokk ko mais lu ñëpp bokk alali askan wi ñëpp a ko moom te ku laaxul lekk doo laax jaay war nañ cee mën a sàmmante ba duñ ci am daan yàlla ci suñ digganteeg suñ borom waaye duñu gëj ci gàddu ak kenn tey jii dañuy dañuy ñi ngi ci di liggéey suba préfet day def benn réunion administration pour affaire état bi alxemes dana ñëw programme pour mën a tàmbali liggéey bi alxames ci ngoon wala vendredi au plus tard ñu tàmbali ko distribuer distribution bi nag dafa am ñaar juróom ñaar fukki dëkk ak juróom yoo xam ne dafa bokk ci Touba te nekkul gara ci biir dëkk bi. Mhm. ay village lañ yoo xam ne dafa génn dëkk bi commune bi boot leen. te do dëkkuñu Touba bokkul ci Touba. ci biir dëkk bi am ñaar fukki village ak juróom yoo xam ne ci lañ bokk village bu yu yu ci bari am ay sancaan yu yaatu ba ñeent ci village ba nga xam ne moom lañ fekk si woon. moo fa boo xoolee ku lu mel ni nit boo xoolee lu mel ni Tindoodi boo xoolee lu mel ni Daaru Saw boo xoolee lu mel ni Caaween boo xoolee lu mel ni Mbusoobe boo xoolee mel ni Daaru Rahman ak dëkk yi mel ni moom ak Saam Saam ak sëñ Abdou Latif Saam ak sëñ Baara ku nekk gis na foofu sancaan yi ni mu soree ak ni ñu sonnee ñu fas yéene daal li nga xam ne commune bi defal na ko boppam ndimbal na ci fekk loxol borom dana tàmbali ba fu yem bu ndimbaleel état bi ñëwee ñu sof ko ci pour mu mën a daj ci askanu Touba.